alhamdulillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi Cheikh Tidiane wax ne dañ maa jëñ ci péeb yàlla bi ab jañiñ ab jañiñ sama lépp di sama lenn sama lenn di suma lépp sama mujj di suma njëlbeen sama mujjee suma njëlbeen di sama mujj ma mujj di moom mu mujj di man ce moomam nga du ci sama man gi ndax sama man gi wàññeeku la ce nga waaye sama man gi yàlla du dee du wàcc ci ab jaam mu mujj nag mu ne buñ ma laajoon téeméeri junni laaj benn tontu rek laa leen amal bàyyi ne lawla anna Cheikh Tidiane qaala hada lama kaana huwa cheikh yi bu taxutoon ak Cheikh Tidiane wax lii de Cheikh Tidiane du nekk sëriñ moo tax yàlla faydu Cheikh Tidiane doon wax faydu bi mooy li nga xam ne moo ñëw pour tasaare boobu mbóot fa Cheikh Ahmed Tidiane waxee faydu bi faydu dana ñëw ci sama taalibe yi fekk ni ñaa ngi ci gën caa nekk ci tat tat tat boobu ku ko bugg a seet ci zahir sax man nga ko gis ndax jamono diggante bi faydu bi feeñ mooy diggante ñaari guerre ñaari yi amoon rek nit ñaa ngi xiif amuñ liñ lekk nit ñaa ngi feebar amuñ liñ oddoo ci jamono jooju ci diggante yooyu la faydu bi feeñ ndax 1930 bii pare na bi ngi jublu si loolu yëpp ay jafe-jafe la waaye fekk na ci nit ñi ay jafe-jafe baatin na sëriñ boo xam ne dafay ànd ak taalibeem buy ut yàlla di ut yàlla di ut yàlla ba taalibe bi toog wax ak moom franchement sëriñ bi jooy ne ko dëgg-dëgg li ngay ut man mënuma la koo jëriñ waaye sëriñ yooyu yu baax lañ ndax mënuma ko ba pare ne da nga lor nit ki loolu tim beneen affaire la Cheikh Abdoulaye Diédhiou ba ci ñu topp Baay la ci Mauritanie njëkk muy nekk taalibe Baay daf doon ñëw ci Baay di ko laaj ko jox ndax bàyyi loo ñëwee mu ñëwee noonu boo ñëwee ne ko ab shérif la moom taalibe shérif la bu boobaa boo ñëwee itam di taalibe bugg a jëriñu moom sëriñ yi képp ku bugg a jëriñu la sëriñ yi képp ku bugg a la ba mu ñëwee di shérif mi laay addiyee ko jox addiyee rek mu dem ku baax ku nangul nit yàlla yi mooy sëriñ boobu bàyyi laa wax ku baax ku nangul nit yàlla yi seetal ni mu wax ne noonu la toppee woon baayam bu ma fekkoon yonantu muy dund ni ma ko war a toppee noonu laa koy toppee yónni Seydi Ali mu dem Gàmbi kon lii sëñ Cheikh doon wax ci Gàmbi ak yëpp dëgg la dajale yiñ ko bayal ci jamono jooju ndaa léegi amatut taalibe yi amuñ tool foofu Banjul wala am na Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey fay du